gaay di dem Europe ñi di dem ay Suisse ak ay ay ay Allemagne man dama teg réewum tubaab yépp di dem ay Afghanistan ay Israël ay ay ay ay ay Iran Irak teere Tanzanie waaw ah, tey la mardi la 15 octobre 2024 fi ñu commencé information yi mooy que ni fële si Liban ministre premier ministre bu Italie euh, moom dafa déclaré ni retrait très bien xamante Israël mi ngi koy sàkku si force ONU yi nekk foofu bu fekkee ni maanaam ONU def na lu mel noonu loolu euh, bu boobaa ONU dafay perte euh, crédibilité am ba tey bokk na si information yi euh, neenu entre France ak Israël torsion bi ñoo ngi koy bëgg a taal maanaam ñaari dëkk yi daal temps yi neexoowul ndaxte neenu Macron dafa amoon dafa defoon benn euh, euh, réunion réunion entre euh, ministériel huis clos la woon léegi Macron dafa xamle woon foofu ni Israël nanu xam ni ñoom France ñoom ñoo leen créé woon si ñoo leen créé woon ak Nations Unies ginnaaw bi loolu amee nag Macron ginnaaw bi Macron waxee loolu Benjamin Netanyahu bureau bu premier ministre bu Israël euh, tontu na Macron nee na que ñun maanaam ñoo ngi fàttali France ni nekkul ni ONU moom moo nu créé nee état bu Israël daal nekkul ni ONU moo ko te bu ngeen xoolee histoire ONU moo créé état euh, Israël mais daal euh, même France sax wax na ni. entreprise yi nga xamante ni war nañu benn sommet boo xamante ni entreprise yi ñoom ñoo si daje euh, français yi ñoom autorisé wunu entreprise yu israélien yi ñu teew si kii boobu si ndaje boobu nga xamante ni entreprise yi war nañ ko war nañ ko daje mais nag euh, mën na nekk jeu mën na bañ a nekk jeu ndaxte ku nekk xam ne citoyen français ñoom Uh, Israël la ñu gën a bañ ba tax euh, Macron di jeu jeu bi zaaru jeu bi quoi ndaxte surtout bokk na ci politique mooy que ni ku nekk xam na ni actuellement Israël yu ñaaw a ñaaw lay def ba ñëpp ci teg seen bët ba tax na tey politique bi bu fekkee ni Macron dëgg indi du def dara lu dul jéem a defal population que ni li Israël di def àndu si fekk moom mi ngi si biir ba tey bokk na si information yi neenu euh, réew yu bëri tey euh, représentant wu euh, yu kii dañu quitté bi ginnaaw bi représentant état hébreu bi parole ndax ah, bi mu jëlee parole si la réew yu bëri quitté salle bi maanaam daal xaaruñu fa discours représentant wu état hébreu bi ba tax na journal bi moom li wax mooy que ni Israël actuellement nii euh, ñëpp a ko isolé ba tey bokk na si information si euh, SMF international mooy que ni neenu États-Unis dafa déployé plus de trois cent soldats américains ci désertu Negev bi pour ginnaaw bi nga xamante ni Israël gis na plan bi nga xamante ni moom la war a def palan wu riposte ginnaaw bi mu xamee bi mu jàppee plan bi ba jàkkaar ba euh, déggoo si ak États-Unis moom moom États-Unis dafa jël plus de trois cent soldats yóbbu leen si désertu Negev bi pour bu Israël répondre Euh, Iran bu dee euh, def ay réponse trois 300 soldats yooyu mën a intercepter missile ak drone yaa xamante ni Iran dana ko dana ko euh, sànni Israël ba tey bokk na si information yi FINAFSA dafa déclaré ni ñu surtout dana am benn source boo xamante ni dafa jóge PDG bu Israël bu yor wàllu aéropace industrie maanaam mooy industrie bi nga xamante mi ngi liggéey ci wàllu défense bu Israël nee li mu xam ne mooy que ni euh, ñoom seen kii seen système défense mi ngi dox euh, mi ngi fonctionné seen industrie mi ngi fonctionné euh, trois trois fois maanaam trois li maanaam entreprise mi ngi fonctionné trois équipes manam ñi défar walu défense beeg yoy nee industrie trois équipes lañ ko séparer te actuellement ni sen industrie yoy mi ngi dox 24 heures sur 24 ndax li ñu bëgg rek néna moy que ni ñu am euh industrie défense bu baax ndax té ku nekk xamna ni walu défense mom dafa cher. bomb yaa nga xamante ni ñooy capte missile wala ba wala drone dafa nekk loo xamante ni lu cher a cher ba tey bokk na ci information yi Israël dafa signé benn document euh, engagé di wane ni maanaam ñoom duñu utiliser arme yaa xamante ni Allemagne jox na leen média bild bi moom moo moom moo wax lu mel noonu mais loolu yi genre yëpp ay genre politique la rek genre politique ku nekk xam ne bild moom journalu gouvernement bi la ñooy wax lu mel noonu pour bañ seen population mere leen ak yooyu nag moo mooy waral yooyu mais ku nekk xam na ni Allemagne moom mi ngi si biir moog France ak États-Unis xanaa kay États-Unis moo nangu wane boppam ni fang dàng waaye yeneen réew yëpp ñoo ngi ci biir guerre bi ba tey bokk na ci information moom ministre turc bi yor wàllu affaire étranger nee na euh, masjidul aqsa ligne rouge la pour bépp musulman te actuellement ni leen Israël dafa bëgg attaquer jàkka jooju pour euh, pour bañ deux états am entre euh, état bu Palestine ak bu Israël mais nee jàkk jooju ligne rouge la pour bépp musulman. ba tey bokk na ci information neen premier ministre Netanyahu moom demoon na fii euh, attaque bi amoon attaque bi euh, Hezbollah defoon ba rey fa soldaaru israélien yu bëri. na ah, dem na fa ba méttit lu la fa xew tey sax euh, euh, euh, wax nañ ni waa Hezbollah foofu dóoraa nañ fa tey ay drone ak ay roquette baraat mais li am solo am solo mooy que ni Netanyahu dafa le ni waa Hezbollah li nu def nii maanaam dinañ ko prix bi dinañ ko fay. dinañ ko fay lu méttee métti maanaam daal dinañ leen teg lu métti métti li ndax li nu def foofu noonu moom netti ñaa loolu la xam le xanaa ñu génn foofu dem côté Russie ak Ukraine euh, fi nga commencé rek mooy que ni na lii lu naqadee nangu la mais actuellement nii euh, Ukraine li mu ñàkk ci soldats tollu na ci cinq cent dix-sept mille soldats cinq cent soldats source nee ben ben source lañ ko jëlee actuellement nii maanaam nek na information bo xam information bu nu bu nu publier la na dal armée ukrainienne bi depuis guerre bi mu commencé ak légui toll na ci cinq cent soldats ne dépassé na barre 5000 chiffres nee na nag euh, Zelensky li mu déclaré woon mooy que ni euh, trente et un mille victimes moom la annoncé woon moom président Zelensky mais liy dëgg tey dëgg militaire euh, Ukraine yi dee ci guerre bi toll na ci cinq cent dix sept mille morts tey bokk na ci information yi moom Aldinov commandement force armée spéciale bu Ahmed moom dafa wax ministre de la defence bu Russie ni moitié bi nga xamant maanaam Ukraine li mu jotoon nangu si ay si si région du Kursk neen actuellement moitié bi libéré nan moom la wax moom moom la wax euh, ministre de la défense moom euh, euh, moom commandement bu force Ahmed ba tax na nee na tey jii turu bu Russie libéré nañu village bu Sar. Kosokaya ak euh, ak village bu ko Konopelka situé euh, maanaam euh, tool maanaam digganteem ak Soudza toll na ci six kilomètres village yooyu noonu ba book na ci information yi moom Boris Johnson neenu jamonoy deux mille vingt deux mille jamonoy deux mille vingt et un dafa doon waxtaan ak euh, Poutine lu jëm si wàllu Ukraine maanaam dal doon waxtaan ak moom que ni pour mu bañ a euh, song Ukraine à deux mille vingt et un aussi donc nee de wax ji tàngoon na mook Poutine mu dem ba saaga ko mu dem ba saaga Poutine moom Boris Johnson ku nekk Boris Johnson moom euh, mooy ancien premier ministre bu bu eh, Angleterre moom Boris Johnson boobaak léegi nag ñoom guerre bi mën nañ wax ni guerre bi jigulee ndaxte boobaak léegi am na am na ñetti premier ministre yu wàcc biir Angleterre Boris eh, Boris Johnson ak eh, ak femme bi ak deuxième indien bi damay fàtte nu mu tuddooti kooku moom mujj wàcc actuellement ni Yann Chemer moom moo ko remplacé moom moo premier ministre bu Angleterre maanaam daal nyom ñoom ñoom guerre bi te li leen ko teg lépp guerre bi la guerre Ukraine bi ndaxte guerre bi mu commencé automatiquement ñoom dañ ko dañ ko yëg économiquement dañ ko yëg ñoom ba tax na ne mom jamono jooju avant guerre bi commencé doon na maanaam da doon waxanteeg Poutine par téléphone wax ak ba tey ba xam naa fi ñu koy jeexalee rek mooy que ni journal Bild dafa ñëw ni euh, mal euh, États-Unis malgré que mi ngi pour mi ngi jox Ukraine ay milliards mi ngi jox Ukraine ay milliards teewul Russie mi ngi def ay progression yu gaaw a gaaw rapide yu gaaw gaaw ba tax na actuellement nee na armée Russie bi euh, deux kilomètres moo tee moo ak ville bi ñu naan Kharkov ku nekk xam na ne Kharkov mi ngi nekk ci région bu Donetsk. Euh, nous depuis mois depuis mois bi force Russie percé euh, terrain bi terrain Kharkov oui ça bien côté Kharkov malgré que américain euh, avril 2024 bi congrès autorisé un si ay eh, moitié arme administration Biden ah, administration Biden jox nañu Ukraine ay milliards pour mu pour mu gagner guerre bi wala mu def maanaam défendre seen bopp mais te malgré que milliards yooyu yëpp teewlu Russie mi ngi def ay pertes yu gaaw ba tax na comme ni ma ko waxee nee na deux kilomètres moo Russie dugg biir Kharkov Kharkov nag su ma buñ fa xasee ba rek léegi euh, région bu Keef moom mooy des xam naa fi laa leen di tàggoo di wax ne jàmm ak jàmm suba jàmm incha allah.